ay ca mbokk yeeg xarit yi teewlu solution info ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal mboolem internet yi ñuy seetaan rek dem nag ba diwaanu Thiès yi benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm di ko ñaanal nag Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram di ko ñaanal képp koo xam ne rek jamono ji yaa ngi bàyyi xel solution info ñoo fii nag ci Sidi Lamine Niass comme niñ ko amee habitude di ko defee 30 minutes d' muy actu ki nga xamante ne moo di Seydina euh, Omar Boun Khatab bu mag bi nga xamante ne ni euh, situation boo indi rek mu faram fàcceel ko ba mu leer nañ ñu toj ko ba képp ku comprendre woon rek di nga comprendre dañ koy daal bàyyi nag mu nuyoo kenn tornoti su ko defee tey ñu xuus ci actualité bi nga xamante ne ni moo gën a fës ci week-end bi rawatina nag ci semaine bi ñu génn Omar Boun Khatab Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm. ma jigéen maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu ñi seetaan solution info TV di nuyu waa régie di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni rek solution info TV. mën nañ di abone mooy aussi tamit mën nañ di nu seetaan saa su ne. Mm-hmm. ñu fas yéene wax suñu xalaat rek ci actualité bi di wax ni monsieur Dieng war na gaaw ñëw <laughs> ah waaw waaw lii ah plein day bi gis naa ko <laughs> Ah, <laughs> Omar baal na waaw monsieur Dieng. <laughs> xam naa ni bokk na ci moom mooy kii njëkk di seetaan xam naa ni ah, ah. moom. ah loolu de am na moom dafa mel ne bii lay xaar. <laughs> Uh-huh. ñu ngi ci kanam rek euh, ñu fas yéene seex waxtaan merci beaucoup léegi da ngaa bëgg a jël jikko sooy sooy bu daal. ah ku gis nan ni nene ngi. ay ca kon leer na. Mm. xëy na dina ko dégg ndax mu ñëw boog sax ndax yàlla. ay ca mi ngi noonu Omar ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp nag ñi nga xamante ni nii ñoo ngi woon fële ci Yoff ak Cambérène leen ci mhm. appel bu Seydina Limaamu Laay mhm. nga xamante ne nii doon nañ ko amal ci talaata talaata ji ak àllarba ñu gis ni nag euh, président Macky Sall mu ngi fa woon ak premier ministre bi euh, pardon auto pour moi ministre de l'intérieur mhm. Antoine Félix Diome moom ñoo nga fa teewoon ci appel bi lee tenir nañ fa nag ay discours wax ci li nga xamante ni nii moo di jàmm ji nga xamante ni nii ren moo nekkoon thème bi muy wax ñu ngi woote waat ñoom jàmm ci seen biir waaye nag euh, dañuy gërëm nag discours ki nga xamante ne nii moo di euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci famille Laayeen bi ñoom it yëkkati nañ fa ay kàddu yu am am solo di wax ni jàmm boo koy woote day fekk yow nga nekk ci d'abord. Mm-hmm. naka nga gisee euh, président Sall dem bi mu dem foofu ak Antoine Félix jomm li mu woote si jàmm ji. léegi lu war la dem bi. Mm-hmm. parce que bu cérémonie yu mel ni amee. mu mm-hmm. ministre de l'intérieur dem. mais président Macky Sall dem bu doon beneen njiitu réew tamit noonu lay demee. Mhm. mais aussi tey am na ñeneen ñu bokk ci opposition tamit di fa dem parce que cérémonie yi day doon comme li may faral di wax ci wàllu diine. Mhm. mais aussi tamit euh, ci wàllu politique nga mën a dem euh, parce que sëriñ danoo boot mbooloo mu yaatu te mbooloo moomu fu ñu féete rek day ci wàllu politique day diis moo tax des fois ku ne di fa dem di uti dara bu dee ñii day dem pour uti ñaan ñi dem pour ziar seen sëriñ. ñii moom dañuy dem pour ut ay militant maanaam dem ca kër ga saafonteeg waa kër gi pour ñu yëg ni ñi kat yëg na leen fonk na leen kon président bu jugee keneen jug loolu lu jaadu ci wàllu politique te loolu la ñu tàmmal ci mim réew. Mm-hmm. léegi nag bu dee wàllu jàmm jàmm moom ñaara koy dox man mii bu ma bëggoon jàmm tey ji yow bëggoo jàmm ñu seq ko mm-hmm. fu ñuy mujj rek mooy mbëkkante. te nag euh, da am lu Serigne Cheikh doon wax. Mm-hmm. mu ne jàmm ji ëpp baaxul. maanaam jàmm neex na waaye jàmm ji ëpp baaxul xam na loolu dafay laaj. jàng dafay laaj tamit gisin mooy jàmm ju ëpp fu ko waxee rek mooy li ab Abdou doon wax naan nangu naa toog ci suuf waaye nag nanguwuma ku jël ay tànkam di ma ko teg maanaam jàmm jooju ñuy wax fii ci réew di Sénégal ki ko war a njëkk a bëgg waaye ki ci një war a njëkk a jiitu moom mooy kilifay diine yi xamul dama kilifa kilifay diine yi moom jàmm ñoom da leen a arrangé mooy bu réew mi doon tàkk tey ku ne mën na dem. taalibe yeeg yëpp mun nañ génn réew mi dem mais sëriñ si mun ñu dem maanaam même président mun na daw génn Ousmane sonk mun na daw génn mais sëriñ si ñoom mënuñu génn réew mi maanaam li ëpp ci réew mi ñoom ñoo ko moom te nit nag du bàyyi alalam di dem kon moom ñoom ñaam jàmm rek mooy li leen war kon li Sëriñ Tuubaa doon wax moo gën fa ñu jëm waaye te moo gën fii kon ñoom loolu mooy li leen war léegi nag bu ñu demee ba egg ci ni nag jàmm jooju lan moo ko war indi parce que bu ñuy wax du rek dan naan jàmm-jàmm ne lan moo ko indi pour man li war a njëkk indi jàmm ci réew mi mooy ki yor yat wi dóore dóore yor doole du nguur ñu am courage yu jàkkaarloog moom na ko yat wi téye ko maanaam baal dóore bi waaye tamit ñii tooñ ñu leen bàyyi leen tooñ maanaam ñaar la ñii tooñ di jalgati ak ki yaru yet wi dóore mais bu dee ni kiy dóore day dóore te kenn defu ko dara wala day dóore pour napp nit ñi parce que bu nee la lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci kaso bi ñuy yóbbu leen instruction ñuy yóbbu leen fee ci loo xam ne tey jii mën na am bu doon nii rek danoo nekk ci réew mu normal loolu du am. loolu mënut a jur jàmm. beneen bi ci topp mooy euh, mooy ki war a jug ne moom dafa bëgg doon candidat ñetteelu yoon ay nitam doon ay naafeq doon ay triant naan leen mandat bi 2019 la dooroon. Mm-hmm. te en 2012 mu def prestation de serment mooy président Macky Sall lu tax man sama kàddu 2012 maanaam ka mbiri mandat di ci. ëpp loolu la parce que man dama jàppoon ni ak Macky waratu waratuñu dundu président boo xam ne tey jii dañuy toog ñëpp naan troisième mandat ba débat boobu ci Macky Sall dafa doon xewi ba beneen njiitu réew bu ñëw ci réew mi du sañati wax sax mbiru ñetteelu mandat. mais Omar ñu fàttali ne président Sall ba léegi nii àddoogul ci mbir moomu ay nitam ñooy xel di jéem a dugal ci bopp nit yi que ni mën na nekk mais moom en personne moom mi nga xamante ni nii moom mooy ndey mbili gi ba léegi waxagu ci. waaw parce que bu dee ni képp ku ne troisième mandat mu neexal la képp ku ne ànduma ci mu dàq la. Hmm. maanaam moom loolu la bëgg parce que wolof yi dañuy faral di wax naan mag am na loo xam ne mënu ko waxal bopp mais ku ko waxal mu jël foofu la Macky Sall toogee. Hmm. maanaam am na loo xam ne mënu ko waxal boppam mais day bàyyi ay li waaye ku kooxal mu jël. maanaam proverbe boobu moo ñëw ci Macky Sall képp ku ko bëggal troisième mandat bëgg na la waaye ku képp ku ko bañ bañ na la. Mm-hmm. te dama jàppoon ni sëriñ si tey jàmm ji li jiitu ci réew mi. Mm-hmm. mooy ñu ni ko ah président mm-hmm. ñettul mandat mbaa sa xel da cee ne bu leen nee waaw ñu ni ko génn ci bu leen nee déet ñu ni ko gongo. ñu ni ko ah sa diggante ak Ousmane Sonko lu ci ne. parce que damay wax ñett yi mën a taal réew mi mandat ci la digganteem ak Ousmane Sonko. mais boo dégloo ah. discours euh, ki nga xamante ni moo di Antoine Félix Diome moom dafay mel ni fi mu toll nii ñu moom pour moom jàmm euh, euh, li nga xamante ne ni moo di ay wi ci côté opposition bi la nekk parce que dafa dem ba indi sax terme gatsa gatsa boobu noonu nañ ko remplacer ak jàmm est-ce que nekkul une sorte bu nga xamante ne ni genre gaaral lay doon. jigéen moo la benn mbir. Mhm. maanaam moom. xam na son ko fa mu toogoon di wax garsa garsa nga rafetlu kàddu gi nga bañ ko. Mm. fa fa mu ko waxee mën na am ni turbi la woon pour waxee wax jooju. Mm-hmm. mais est-ce que ci cérémonie officielle lan war a jaare pour di tontu opposition. keroog xaw wax naa ko ci tele mooy cérémonie officielle bu ñu koy wax mm-hmm. man dama jàpp ne foo doon ndaje moo xam ne buur day toog jàmbati taalibe yi parce que bu ñu dee wax sëriñ si taalibe yi ñoo tax. Mm-hmm. Macky Sall taxul benn sëriñ doon sëriñ mais bu nee diw sëriñ la rek ay ñoo tax maanaam taalibe danoo am jafe-jafe ci wàllu xëy taalibe yi ci wàllu mbay mi ak napp gi taalibe yi ci leneen ak leneen tey jii dañ ci am ay jafe-jafe te ñoom nu ñu toog waxal ko seen bopp bu buñ jugee sëriñ si na leen jug leen toog leen na baaxul pour man bu ñu demee ba am cérémonie yu mel ni li jekkoon mooy bu ministre de l'intérieur wala président toogee ñu ni ko taalibe yi de bu ginnaaw bon waxee waxi diine at mii de lii moo ci seen jàmbat lii moo ci seen jafe lii lañu bëggoon maanaam loolu bu doon ni discours la boo xam ne tey jii dañuy toog waxtaanee ko maanaam ndaje mi day am solo loolu day neex loolu ba ñi toog yépp gis seen bopp waaye bu dee ni dafa war a doon benn turbine boo xam ne sëriñ si li ñu war a wax dañ koy wax ne mais ñoom Antoine ak ñoom bu ñëwee li ñu war a wax ñoom duñ ko wax parce que li gënoon mooy. ñu ne Cambérène ñu ne dëkk lébu la bu ne lébu wax wàllu napp. yaa ngi gis bu ñu waxee ci VDN amoon coow li amoon. ci VDN 3 bi benn naan se maanaam sëriñu laaye di mm-hmm. maanaam dañ koy dox ci digganteem ak taalibe yi ndaxte fi moselle bi ne est-ce que maanaam yooyu ñu leeral ko ci kanamu nit ñi mm-hmm. mais aussi tamit te gindi ci taalibe yi ba bu déwénee mm-hmm. wax jooju kenn du ko waxati maanaam dafa waroon nekk une turbine boo xam ne nekkul pour tontu Sonko wala pour tontu opposition mais dafa waroon a doon turbine boo xam ne ngir mën a rassurer sénégalais yi mais aussi pour mën a jaajaat taalibe yi ba ñu gën fonk seen sëriñ waaye tamit jafe-jafe taalibe yi sëñ bi taxaw ci kanamu ñii di nguur gi jaare fa mu doon occasion ngir mu waxaale leen jafe-jafe yi taalibe yi di dund bu boobaa ndaje mi waxuma amul njariñ de waaye day am njariñ loolu waaye nag bu dee day permettre benn Antoine pour muy tontu Sonko man damay jàpp ni loolu ca xajoon na feneen fu dul ci fi ñuy waxtaanee diine nag pour man Antoine dafa def hors sujet. hors sujet waa parce que ndajam diine diine lan fa war a wax. mais thème bi jàmm la jàmm la woon Omar. mais Antoine bëggul jàmm. <laughs> Antoine Félix Diome bëggul jàmm noo xam te dëgg. bi fi ñëwee ba léegi doon ministre de l' intérieur moo xew ci réew mi. ci loo xam ne tey jii ay excès la bi ci mujj mooy bi bi ñu mujjee jëlee Ousmane Sonko ci corniche bi. Mm. loolu ku bëgg jàmm di nga ko santaane. ah en tant que ministre de l'intérieur ak li mënoon a jur ci réew mi. Mm. ku bëgg jàmm di nga jël Ousmane Sonko di ko yóbbu résidence surveillée ci loo xam ne justice moo war a taxaw ni. diw dañ ko war a yóbbu résidence surveillée nga def ko say bëgg-bëgg ak say bakkan ba tax ngeen di daje trois heures du matin mm-hmm. deux heures du matin ca palais ba pour dindi ko parce que bu dul woon loolu réew mën naa tàkk mm-hmm. parce que bari na fu tàmbali woon di bax ba ci université bi ñu xëyee. ci la parce que Ousmane ko waa États-Unis dañ ko invité seen ambassade. pour ñu waxtaanee léegi bëgg ko bloqué ngeen jëfandikoo seen bakkan jëfandikoo seen doole ku bëgg jàmm dina fekk Sëñ Assane Mbacké ca Touba di ko di ko téye nga ne yow da ngaa bëgg diine ji. ah di nga fekk waa Touba yi war a amal seen ko manifestation ca Mbacké nga leen kar ca Touba la Sanjogu doon wax démb lacrymogène yi di jugee Mbacké di dali Touba. ku bëgg jàmm. di li li xew mujj xew yëpp ci election yi ñu weesul di local di législative maanaam di rocc candidat di dugal candidat di annuler ay liste jàmbur. Mhm. ci ministre de l' intérieur boo xam ne dafa waroon a tëddee njaaxanaay dama dama lay wax leen ci Antoine. Mhm. di nga opposition bi dañoo xaw ñàkk fayda te doye di. Ah. waaw dama koy wax. Mhm. parce que daa am loo xam ne nangu lu ko woon Abdoulaye waat waruñu ko nangul président Macky Sall Abdoulaye Wade bi ñuy toll ci moment bi mm. Cheikh Gueye moo nekkoon ministre chargé des élections xeex nan ba Ousmane Ngom nekkatul ministre de l' intérieur organisé wul élection on ne peut pas être juge et parti Barthélémy Dias da koy wax nee na ñun suñ combat bu njëkk dafa war a doon fexe ba Antoine du organiser élection Sénégal ndaxte élection yi mu fi mëjee organiser pour la première fois ñu ne liste titulaire bu opposition Yewwi du bokk ba tax Ousmane Sonko doonul député pour la première fois ñuy tànn ay maires yi du dem ak yu dul dem. Mhm. loolu kan moo ko organisé. Mhm. ministre de ne pour la première fois ñu joxe ay carte d'identité yoo xam ne tey jii. noonu maanaam nit dëkk pour la première fois au Séné au Sénégal ñu dem ba département mel na Kër Massar ay élection des ay fan ñu def découpage découpage bi jeex ñu ne léegi dañuy képp ku yoroon carte d'identité carte électeur da nga koy renouveler Kër Massar. ci temps boo xam ne un mois la. Mhm. bari na ci Kër Massar ñoo xam ne tey jii dañ doon voté. voté wuñu ci découpage boo xam ne ñi fare ci bopp réew mi rek ñoom ñoo ko doon def parce que dañ ko doon jiital seen bakkan mais di def loo xam ne lu leen neex la ministre de l' boobu gars yi bëgg ko bàyyi fu ne mu tambaambala fu ne mu teg fa tànkam mhm. tey ji ministre de l' tey ji lan la waroon xumtoo balaa muy wax waxi politique mhm. dafa waroon wax ci kaarangay askan wi mhm. ministre de l' boo xam ne tey ji pour la première fois au Sénégal ay corps d'élite yu ci mel ne BIP ci ki GIGN di daje pour jëli benn opposant politique mu munoon jur lu ne parce que c'est un moo tax nit ñu dugg ñu ci mais booy waxtaanee nit ñi ci suuf maanaam boole ñaari corps yooyu rek ci wàllu maintien de l'ordre rek erreur la nit kooku loolu lépp di ko def ñu fa mu toog ñu fay waxtaanee jàmm mu jàmm la bëgg mhm. jàmm pour man Antoine Diome bëgg ko Antoine Diome bu bëggoon jàmm xam li mu njëkk def mhm. bàyyi tooñ ak bàyyi jaay doole gi mu nekkee fii ci réew di Sénégal mhm. te nag ci wàllu diine ji Ousmane Sonko da cee nekk victime ci lu bari dama lay nettali lenn du mu tudd turu kenn dafa am benn sëriñ bu Ousmane Sonko di seeti sëriñ bu baax. Mhm. sëriñ bu noppi kenn du ko dégg ci dara man de mosuma dégg kàddoom ci àddina mais Ousmane Sonko daal dina fa dem yor ay xasaay dem ñoom mais ji heure bu fa demee dañ koy photo photo yooyu nag dem bay déranger kenn ci nguur gi kenn kooku xam lan la def ñëw wër sëriñ ba mu ne leen mënuma tee waa ji ñëw fu waaye bis bu fa ñëwatee bu ko kenn foto di ko wane ndaxte loolu da koy jox doole mu xëpp ci xaalis bu bari pour bëgg a jaxase Ousmane Sonko ak sëriñ si mais aussi dem ba mu fay dem neexu ko te kooku di wax loolu tey gi moom moo ne jébalu na ci président Macky Sall te ay at ci ginnaaw dafa noonu jébalu na ci sëriñ diw mm. léegi kay moom mun naa wax nii nekkatul taalibe sëriñ boobu léegi taalibe Macky Sall la waajooju léegi nag xam ngeen ku mu doon boole leen <laughs> ma egg ci tur bi <laughs> loolu tax ma ni la seen wax yooyu ay waxi caaxaan la uh-huh. di nga jàmm bi am ci réew mi nguur gee koy war a njëkk a bëgg nguur gi moo ciy suuxa dox ko wax ko waaye jàmm nag bu dee day am mm. ñu ne heure bi ñu duma opposition bi jàmm am na mm. waaye bis bu opposition bi di fayu réew mi amul jàmm mm. loolu nag moom mooy wate tax jëm ci benn boor te nag kilifa day maandu. kilifa day maandu te aussi hmm. moment bi nga xamante ne ni hmm. ñu ngi bàyyi comme ni nga ko waxee Antoine Félix Diome ci ministère bu intérieur euh, chamboulement nag am na ci magistrature bi ñu gis ay changement ak ay soppeeku yu euh, yu bëree bëri foofu la est-ce que du jur njeexital sénégalais yi seen xalaat yi ñuy xalaat ba léegi nii. nga xam ne loolu lépp li muy indi mooy. Hmm. yab gi Macky Sall yab sénégalais yi. boo déggee chamboulement ci loolu lay dem. Macky Sall bi mu njëkk di door politique dekkal ngor coalition dekkal ngor la demee woon en 2009. Hmm. bi mu ñëwee di dem 2012 ak yooyu yoonu yokkute. di ci programme mu Macky Sall ngir mu doon njiitu réew bu Sénégal di nga Macky Sall li mu defoon ci programme bi ba muy falu bi mu faloo da kaa dindi moom bi mu faroo rek la war Sénégalais yi. Hmm. maanaam la mu leen waxoon moom avant muy falu bi mu faloo rek la ci jóge nekk ci leneen. di nga li ñuy wax ci magistrature bi nii. Hmm. ci Abdoulaye Wade dañ daan xeex lu bari di bañ. naan euh, magistrature yi magistrature bi Sénégal dafa doon loo xam ne danoo sukk jébbalu ci kanamu nguur alors que ñetti pouvoir moo fi am mooy ñi fare assemblée ñi fare ci yoon ak ñi fare ci donkaasi gi di exécutif Macky Sall ci euh, campagne xam loolu la doon wax mm-hmm. da doon wax naan bis bu ma faloo dinaa fexe ba magistrature bi am indépendance am mooy conseil supérieur de la magistrature. mooy loolu pour mu am indépendance ñu demee seen cëggalu gi maanaam président du doonati koo xam ne maanaam mu koy jiite am fa yenn doole yi moom président de la république. beneen bu topp mooy ministre de la justice. du doonati vice président bi. maanaam magistrature bi ay nit yu dul magistrat ñoom ñoo leen jiite maanaam ministre de la justice mënul ko fal ku ne ci réew mi. président de la République ñoon jëte alors que dafa noonu ñaar yooyu yëpp moom bu amee day def rupture baatu rupture loolu tax mu doon dellu si mm-hmm. maanaam comme ni Ousmane Sonko doon wax anti système moom noonu la doon waxee rupture maanaam la woon woon ni la la amoon du amati mm-hmm. léegi bu ñu demee ba en le président de la République jite conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. ministre de la justice doon adjoint maanaam doon adjoint topp ci ginnaawam doon vice président bi kon ji Macky Sall la mu diggoon Sénégalais ci wàllu justice ba mu faloo la ko jalgati léegi nag soppite yooyu am mooy tombé dafa waral ay gaaf. Mhm. xam ne justice ak presse daa am fu ñu nduroo man damay faral di wax naan justice euh, indépendante amul Serigne Lamine sax da nga daan wax juge indépendant moo am. presse bi tamit une presse indépendante man gëwuma ko mais ci biir presse bi mooy am ay nit yu indépendant rek am éthique am déontologie gëm seen liggéey. Mhm. bañ di jaamu soxlaay kenn mais jàpp ni seen liggéey nañ ko war a defee leen mhm. mais ci justice bi tamit amee mais man xamul ma jaaxal ci justice Sénégal. les mêmes rek ñooy ñëw li magistrat ci Sénégal mais les mêmes noms yi nga daan dégg ci Abdoulaye Wade mm. bu Macky Sall ñëwee falu ñoom lay tegaat léegi est-ce que nekkul ni da am ñu nekk ci justice bi loo di def ay salbulo am ñoo xam ne tey jii dañ fa nekk lu nguur bëgg rek ñu defal ko ko moo tax nguur gu ñëw kenn du xool seen éthique kenn du xool seen moral kenn du xool seen déontologie kenn du xool seen dara mm. léegi ñu mooy ñoo xam ne tey bu salbulo yu jotee rek ñu fal leen na leen def leen ko. Mm. ñeneen ñoo xam ne tey jii ñi ngi bañ bañ lu mel ni man ñu ne leen nañ dem Kédougou wala Tamba wala ñu wàññi seen doole exemple Souley euh, Téliko am na Souleymane Téliko mm-hmm. doon juge boo xam ne ci maandu dem bay bind sax ay téere ci wàllu sharia na lañuy attee maanaam bis ci képp ku du maanaam doon daal ab imam ci biir am na benn imam bu ñuy wax euh, ndaari imam boobu tamit la même chose mais ñooñu lu tax ñoon duñ am promotion lu tax nguur i Sall gi. à chaque fois bii def promotion la ay médiocre la koy def. Mm. wala mu koy defal ay ñoo xam ne dañoo retraité ñoo xam ne amatuñ ambition pour Sénégal mais amatuñ ambition sax pour seen bopp. Mm. ñoom seen bakkan lañ jiital ci lu ne. Mm-hmm. loolu tax ñuy faral di wax naan mag mu baax. ma mag buur la am ñu ne mag bu baax moo tax ñuy wax. Mm-hmm. mais am na mag yoo xam ne jarul tax ñuy wax mais tey jii boo xoolee ñi ñuy fal ak moment bi leen fal ci coowal Ousmane Sonko. waaw moment bi leen fal ne Ousmane Sonko ak Adji Sarr moment bi leen fal. ne Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang moment bi leen fal ne dans dañuy dem ci élection présidentielle fii ak ay weer moment bi leen fal ci ni candidature bu président Macky Sall candidature la bu lew la wala bu lewul yaa ngi gis moment bi leen fal moo tiital ñu bari ak doole ji nguur di am parce que tamit nit ki li naan euh, boo doonee sikkim da lay gesuwaale te bari na ci ñoo xam ne tey ji da leen a fal pour man ay sikkim lañ da leen gesuwaale te ki leen tabb doole ji mu am mooy mu am pouvoir de vie ou de mort pour man moo indi lool maanaam tey jii kenn kenn ku mu fal ci ñoom defaloo ko lu mu bëgg sañ na la dàq dem lay jox euh, kii nu mu tudd euh, Aline Badara ndaw le procureur ci mbiri Karim Wade mm-hmm. est-ce que xam ne waa ji fi mu toog di àtte lañ ko yónnee SMS dàq ko parce que boobu moom bi Macky Sall tànnee Karim Wade. Mm-hmm. ñu bëgg ko defloo yenn nii. ci affaire mbiru Karim Wade. ñu jàpp ne procureur bi mm-hmm. day bañ. mais fa mu toog di àtte la ñu sañee jël décision dàq ko maanaam mi ngi mel ma toogoon di def émission jékki-jékki fii rek xala yónnee message na ma tu arrête léegi c'est fini. Mm-hmm. imagine tey ji justice bi mën a toll foofu. Mm-hmm. tey jii loolu mooy indi nag képp koo xam ne tey jii yaa ngi war di àtte àtteetoo sa akulaay taala àtteetoo ni diw def na wala diw deful dama lay jox affaire kalifon Kaliphone lan la doon wax. dañ ko jiñ viol mais dañ ko jiñ ni dafa duma nit jigéen ñu jël viol bi teg fële. Mm-hmm. kii di euh, Massata sàmb mhm. bu pur ak euh, keneen ki sant ñan ñoom tamit liñ jiiñ Kaliphone la leen jiiñ xam ne Kaliphone bind na ko vol bi mais dafa duma jigéen ñee ñu jiiñ leen ñoom tamit doonoo duma jigéen mhm. ñee ñu tëj leen juróom benn weer Kaliphone ñu tëj ko weer ci ñaar ñoo xam ne li leen di jiiñ benn jiiñ bi la li leen yi jiñ lenn la li leen di toppee. ñoo ko mais bosu Kaliphone sa boo dee seet moo gën a graaw. moo gën a graaw bàyyil na ay. Euh, ay traces traces li nga xamante ni moo di. Euh, kii parce que ñii da leen a bëgg a xañ. Mm-hmm. seen domal tànk député. Mm-hmm. kii mën am arrangé na leen. wala mu toog ci loo xam ne boo ko waxee. boo dee boo dee seet sax bu bu bu bu Ami Ndiaye ñibbi bi moo moo gën a grave foofu parce que ñi ngi wax si affaire diine mi ngi taxaw di wax ki nga xamante ne ni moo di sëñ Moustapha Sy alors que boo seetloo sax fan yi ñi génn problème mu ngañ daan démb bi daanaka boo ko différencier doo ko doo doo si doo si dindi lu bëri parce que lépp ci diine la te yaa ngi gis ni depuis mu wax loolu ñoom ñi nga xamante ne ni ñoo nekk si pouvoir bi ñu ngi commencé di wax ne gars yi dañu bëgg xeex diine wala dañu bëgg indi beneen diine bu bees ban différence ngay def. Euh, ci la benn affaire waaw ñi naan euh, dañuy xeex diine géeg ñoom seen ji nga diine ji kenn moomu ko diine yàlla la mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. diine ji kenn moomu ko léegi li am te mooy leer mooy commune ci dafa am ay wasila am ñu mu gëm am ñu mu yaakaar ji nga euh, yonent bi sunu sang rasulillah da daan wax Omar na ko wax ji nañ ko seetaat ñu ne lu tax Omar na ko wax ji bu dee sa waxu bopp lu ñu war a waxtaanee la mm. waaye bu dee lu jugee ci yàlla ànd nañ ci nagam suñu sang rasulillah lan sañoon ne boo waxee lii ànduñu ci asamaak keneen léegi nag gàgganti sa kilifa ci mbedd loolu kenn du ko def dama lay jox euh, benn exemple damay dellu ci ci dina ji ba léegi. Mhm. en quatre vingt dix dafa am benn sëriñ boo xam ne mi ngi woon fii ci senegal sëriñ boo xam ne day politique hmm? euh, ku nit ñi miin la ku nit ñi xam ku neex a déglu ku mën a waxtaan. mu demoon ci benn télévision française def fa ab émission mu ne fii ak ay at bu ñu deful nànk sëriñ si bu nu jéemul def effort seen diggante ak taalibe yi ci taxaw gi leen war a taxaw ak ñoom seen ak mondialisation bi ñëw dinañ dem ba sëriñ bu ci góorgóorlu li ëpp say taalibe di nga leen ñàkk te boo leen ñàkkul mun na am ni sax doo leen nekkati sur la même longueur maanaam boo waxee lii. ñu wax lii. boo waxee lu ñu àndul dañuy taxaw ne ànduñu parce que loolu mondialisation moo koy indi sëriñ boobu nag c'est un marabout intellectuel ba tey jii mi ngi ci géopolitique bi déggatuñ ko lu bari. pour walla ni rek am na ci ñoo xam ne lii am ni tey bettu leen mais am na tey jii ñoo xam ne da leen bett te man nag li ma jàpp ne moo ko indi mooy jamono moo neexatul parce que bi jamono di neex nit ki day dem liggéey rek yëkkat àddiya jox sëriñam mais léegi nit ñi ci yeewu gi ñu yeewu ak ni jamono méttee pour man problème mu xaalis dafa da ci joué lu bari décalage boobu problème mu xaalis da ciy joué lu bari léegi bu dee sëñ Moustapha ak sëñ Modou Kara xamul dama leen di respecté ñoom. Hmm. ak sëñ Mansour Sy Djamil. Hmm. mooy ñoom danoo ñëw taxaw ñu ne dañuy politique ñoom maa jigéen. Hmm. ñoom danoo ñëw taxaw ñu ne ñoom dañuy politique nangoo far nangoo féete xaw man kan moo ma def problème. waaw kiy jë mbubboo diine na farul fenn te far pour man kooku moo indi problème bi. farul fenn te far te teg ci li ñuy waxal gars yi Sonko yi naan diine ji fii diine ji fii diine ji ab sëriñ fii bi fi Sonko mujjee Touba nii ab Sonko ab sëriñ dal na fi Sonko. mati turaapam lan la ko yàqul ci internet mati turaapam kan la faral ak ñan la faral. kenn xamu ko. tey jii Thérèse Faye Diouf. <laughs> la moo fi doon gàgganti sëriñ si yàggul. Ami Ndiaye ñii bi. moo ci mujj nga ñëw ci Rama Maki. Hmm. ngay lim di lim di lim ba du jeex. Hmm. Cheikh Béthio Thioune kan moo ko tëjoon ci kaso bi. président Sall la la gaa yi wax. Hmm? gaa yee ko te tey jii Macky Sall tey jii ku waroon na fonk sëriñ si la jàppale leen. te sëñ Abdou Mbacke Bara Dolly kan moo ko yóbbu ci kaso bi. sëñ Assane Mbacke kan moo ko yóbbu ci kaso bi. maanaam bu mu doon tey jii xool ban président mu ëpp ci këru diine yi ñu mu yóbbu kaso Macky Sall la. ci këru diine yi senegal ñu mu yóbbu kaso président Macky Sall léegi pour man lan moo waral ñu mën a nangul Macky Sall lu ñu daan bañal Abdoulaye Wade pourtant Abdoulaye Wade moo gënoon ci këru diine yi Abdoulaye Wade mën na waat ni taalibe Sëñ Tuubaa la mag ku fonkoon seriñu diine yi la ndaxte ba ko sëñ Baara Mbàkke taxawee. Falilu ah, waaw nag wax ko ci Macky Sall dakaa baal ba diggante ma Idrissa Seck sëriñ Abdou Aziz Al Amin ba rôle la ci jéewul. digganteem ak diw ak diw diw diw diw bay wax tey ba mu lii yu bari tey boo doon lii yu bari doo ci mën a dugg mais Abdoulaye Wade ku déggaloon sëriñ si la ndaxte bari na ci yu mu naroon. Mm-hmm. mais sëriñ si daan ko ñaan mu bàyyi. kii Karim Wade nekkul ci kaso bi ba ba sëriñ Abdou Aziz Al Amin di wax naan kii dafa dëgër bopp. dan lay woo mënuñu laa jot kan la doon waxal du Macky Sall <laughs> ah ñaata yoon lañ ko ñaanul ci mbiri xalifa uh-huh. ñaata yoon lañ ko ñaanul ci mbiri Karim lan la Macky defal sëriñ si. ba lan ko war a wax waxuñu ko man loolu problème la ci man te pour man defalu leen lu tee ñàkk ñu jàkkaarloo moom na ko mhm. bul yàq réew mi bul tas réew mi mhm. te troisième mandat bii dañ ko fiy tere d'accord Omar tekki nag justice bi ah. ngalawaay ah. réew mu takk ci àddina ma jigéen justice mooy li ko taal mhm. justice mooy li ko taal di nga avocat yi fulla gi ñu am ba ordre des avocats korok ci diggante Mame Mbaye Niang ak Senghor ta ak euh, Sonko taxaw na leen nan pousse dossier bi pour man magistrat yi union des magistrats du Sénégal bi ko Téliko di jiite de xàmme woon nañ union des magistrats du Sénégal waaye ba fa Téliko jugee ba léegi tey ji xàmmeetuñu ci ni magistrat léegi nag dafa am benn baat bu ay kilifa doon wax maa jigéen. ñu ne ab magistrat bu jàkkaarloog ab dossier balaa muy xalaat yàlla carrière lay xalaat balaa mi xalaat yàlla. carrière lay xalaat te nag daf ci am loo xam ne. nit ku ne war na koy sàmm. te mm-hmm. ñëwagul. Mm-hmm. tey bu ñuy tudd tey ji des fois Sénégal man damay ba tey jii bu lay wax justice Kéba mbay la lay tuddal léegi diggante Kéba mbay ak tey jii kon keneen amu fi ku tax ñu mën a fàtte Kéba mbay mm-hmm. maanaam sunu réew mi mm. day gën di dem di gën di dellu ginnaaw ci domaine yëpp rawatina ci wàllu justice mm-hmm. alors que nag ñoom ñu doon justice di àtte tey ji bis dina ñëw ñu àtte leen mais beneen bi ci topp mooy ki ana Cheikh Tidiane Diakhaté mi daganaloon candidature bu président Macky Sall bu Abdoulaye Wade mm. jóge na fi bu neexee da nga fiy jóge bu naqaree da nga fiy jóge mm. ji nga Macky Sall bi muy def prestation de serment en deux mille dix neuf bi ñu paree ci prestation de serment bi ka doon def euh, prestation bi taxaw bu ma juumul président conseil constitutionnel wala vice président je ne sais plus. Hmm. am na ñu ne bi mu paree oto Marème Faye Sall la dugg te fa mu taxawoon ngir Macky Sall def prestation de serment wax na ba wax ci Marème Faye Sall alors que Marème Faye faluñu ko war fa woon tudd bu ñu demee ba ay magistrats mun a wàccee seen bopp ci niveau boobu. Hmm. alal rek mooy li ko jar te ak seen carrière alors que carrière bi bu neexee da ngay dee bu naqadee da ngay dee nan sóoraale ni ëllëg am na ñu jeexalee ba tey ci hmm. li nga xamante ne ni moo di politique bi gis nañ ni waa Yewwi Askan Wi ba ñuy dox ci élection euh, électorale yi nga xamante ne ni euh, jotoon na fi am muy élection locale yi pardon euh, ñoom nag dañoo booloo woon waaye nag gis nañ ni jamono ji ñi ngi dëgmal nag li nga xamante ne ni moo di élection présidentielle yu 2023 yi incha allah quatre autant pour moi euh, gis nañ ni nag euh, affaire bi dafa commencé indi ay ku nekk euh, jéem a jaar sa yoon sax su ko nag bi ñuy door waxoon nañ ni seen ànd bi ci local yi lay yem ak législatif yi gars yi nag commencé di si am ay wax yoo xamante ne nii yaa ngi ko ciy dégg Omar muy que ni ñoom waxuñu woon lii te ñoom début bi. ñëwoon nañu carrément ne eh, seen ànd si local la yem ak législatif euh, présidentielle yi ku nekk demal sa bopp après nag certes bu deuxième tour amee dinañ xool ko ci jiitu ñu jàppale ko mu dem. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, maa jigéen yeewi askan wi. Mm-hmm. gars yi ñoo bëgg rek dugg ci coow loo xam ne jaru ko. dafa am benn mbir bu am. mooy lañu waxaale woon tamit loolu la bu ñu àndee ci local ak législatif bu ñu demee président sel ku ne dem bayal sa bopp waaye dañ ci teg lenn bu ñu demee candidat bi génn ci deuxième tour boobu le ñu jàppale ko mhm. comme ni mu amee woon en 2012 te bu ñu jàngee ci wàllu taarix mooy élection yi mu si am Sénégal yëpp candidat yi tasaaroo bari hmm. moo gën ci opposition hmm. benn élection bu ñu fi am cinq candidats di deux mille dix-neuf hmm. da ngay xool ni dafa yomboon ci njiitu réew mi kon candidat yi tasaaroo ci yeew yi du yàq dara man loolu laa gën candidat yi tasaaroo du yàq dara mais lépp na doon rek lu sincère. Mm-hmm. man damay fàttali benn wax bu Barthélemy Dias doon wax mu ne opposition bi amul ay leader politique ay dealer politique la am ay dealer politique la am maanaam am na ci ñoo xam ne ñi ngi mbubboo opposition bi di dil mm-hmm. te heure bu ñu demee ba benn jamono rek ngay sentir lu mel noonu bu dee ni tey jii éclatement boobu dafa am kenn rek lay favorable mooy Ousmane Sonko. ko mm. waaye lu baax ci moom la parce que nag neexul ba neexul bu dee ni yeew yi cent pour cent la quatre vingt dix pour cent yi Ousmane Sonko la kon seen ñàkk ànd lu gën la mais teewul ligne bi ñu gëm ñoom maanaam ligne bi ak doxin bi ñuy dox rek nan ko bokk maanaam dafa mel ab jàkka rek ñun ñëpp dañuy taxaw di julli mais wóor na ni kenn du ëppal ay ràkka mhm. na ku ne def li mu war a def ku ne liggéeyal boppam loolu tax boo xoolee li ngay des fois ñu reproché xalifa Sall loo xam ne. d'accord wala ñu jiñ ko Malick Gakou wala ñu jiñ ko keneen. Mm. mais waruñu ko reproché xamul ndax. Mm. ñoom nag danoo yor ay parti yor ay militants. Mm. mais aussi tamit euh, mën na di ànd ak Ousmane Sonko mais du tee aussi tamit ñu liggéeyal seen bopp liggéeyal seen parti te pour man liggéey boobu yëpp Déthié Fall di def. Malick Gakou di def Khalifa di def bu dee ni Sonko nekk na candidat. Sonko lay jariñ. parce que bari na ñoo xam ne Sonko doo wax ñoo xam ne tey bu dee ni day wéy di fi am. ñoom dañ fiy jóge te nguur gi jeu bi ñuy joué foofu dafa jàpp ni benn Karim Wade mhm. wala benn Khalifa mën nañu yàqal mhm. euh, mag kii mhm. dama lay jox mën nañu yàqal kii mais dama lay jox benn secret ci yeew yi loolu rek laay tëjee trente secondes <laughs> dafa bari ñu nekk ci ñoom ñoo xam ne <laughs> uh-huh. danoo gëm ni Sonko du nekk candidat lu tax loolu ñu ngi ànd ak moom mais danoo gëm ni Sonko du nekk candidat te Sonko bu nekkul candidat réew mi ku koy jël ëllëg da koy for maanaam maanaam da topp ci ginnaawam di dox lu mu waddal nga for hmm. bu nekkul candidat léegi Sonko il faut que mu jàppale kenn ci opposition bi kii Sonko di jàppale hmm. maanaam Sonko mën na juge ci roi nekk ab faiseur de roi ñoom loolu lañ jàpp ki muy jàppale mën na jël réew mi moo tax bari na ci ñoom ñoo xam ne tey ji dañuy carte du yoote uh-huh. ne carte boobu ñuy carte uh-huh. ñoom bari na ci ñoo xam ne bu Sonko tey ji nekkoon candidat ñu rocc seen candidature dem jàppale ji Sonko uh-huh. waaye nag comme Sonko mi ngi ci ay jalte jalte te xamuñu lan mooy xew ëllëg ñu ne nan dàq seen wërsëg ñoom itam moo xam ma ah. kon nag ñu joxante dig daje rek jeudi prochain ah jeudi incha allah di jégalu ñëpp di jégalu tamit euh, sëriñ si ak euh, wax yi des fois les gens mën nañu con déggee neneen wala ñu gisee neneen waaye jubluwuñ ci dingat kenn wala ñu sàllalu kenn mais dafa fekk ni rek actualité moo ko laaj te mun ñu ko romb te mun mënuñu cee bañ a wax te wax ji liñ ci jub rek mooy defar. Mm-hmm. parce que tamit euh, àddina moo ni demee. Mm-hmm. kon euh, ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni. Mm-hmm. ngeen wéy di abonné ci solution info TV. di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah. ayca merci beaucoup Omar am na solo analyse yi rafetlu ko bu baax a baax ayca ñu ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci solution info di gërëm bu baax a baax Abdou Top Modou Diouf ak Abdoulaye Diallo ak Soy bu Diop euh, di leen wax ne nag jeudi prochain incha allah la ñëwaat ak yéen ci yeneen yi actualité di leen jox di daje rek alxames beneen incha allah.